kulli waajal gi nag lëm ci jublu dëgg dëgg dëgg nun xamuñu ko waaye am na luy jàpp ci suñu xol sëñ Tuubaa waajal na ko bu wér ba lenn luy gàllankoor du jaar ci jëmmam mu wax ne màggal tuubaa gii sëriñ Touba ci boppam ak dundam yaar rekk la bàttale muy jumaa yi Touba ak màggal tuubaa fonk gum ko fonk nag mu wax ne bu ñëwee fii ci Touba tul moo ko waxal boppam nañ ñëw ba ci yow siyaare la jokk kóllëre gi jokk bokku gi waye wax la ne nañ fonk magal ak serigne touba gi lolu nak yow kel du lu ki ndax fekk nañ ko fi ndax bañ joge ci liwantu xaw nañu am ci digënté bi lu mat waxtu ak agsi fi lolu nag ku ko gis da xam ne ki ñuy wuti am na cërëb sëñ Tuubaa cër boobu moom ku fi ñëw danga ko nangu ñun tam ñu ngi lay ñaanal yàlla def saw fan gudd yàlla may la wér ba toolub lislaam bii nga xam ne mbokki mbakki yépp nangu nañ nga jiitu ñu nekk ci sa gannaaw loolu sama borom gën koo yàggal màggal fukk ci safar Euh, ku bàyyi xel sëriñ Touba suñu yaakaar liggéey boobu na mu ko bàyyee woon xel na mu ko waajale woon na mu ko gàttandoo woon kon bàyyi ba weer yu teru nga di ko door waajal sax danga nga yëg ne tuuti na ndax moom dafa ne liggéey ba wa xalbuhu at maraha min ca asasin la waajoon ba jekk ngir tabbi ci liggey bi la ca dess nak su doon wax yu ne jamono ñu ne ay réclasse boromam di réclé ba jëy sa sin ñëw muy doora dogal dogal bi waye serigne bi mom ci assassin la jekkon wa khalbuhu atmaraha min assassin kon wa azharal xidmata ama jëy sa si waxal buhu min assassin mu wàcc ba jek ci ci ci ama assassin ngir nattu la boo xam ne bari aana waaye yàlla ju ko ma sa bëgg bu ca tàbbee buñ ko dimbalewul day mujj yàqule waaye ba mu ko waxee sëriñ bi ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxe mu ne ko roogi laa sàkkul ba xam lu man waaye bu ko roogi att ne sama jom dékku na ko mu ne ko kon nag àgg na ci sax ndomba gi gën a mag ci gu ñuy takkal nit ci kaw suuf muy xutbaaniya mu man koo tayyu taxañal ko li des mën naa doon ñetti weer te fal ko ko waaye sëñ Tuubaa ca gis bu rëy ba Cheikh Abdou nee na mu ne ko sama gis-gis jël na loolu am nañu mbégte ci seen teewaay sëñ Maamoor Mbàkke ak njaboot bi nga jiite te ñu bàyyi seeni sëñ Abdou Khafor Mbacké am nañu mbégte bu baax ci li ngeen sàkku bu mu ñëw fii tey muy caravane Cheikhul Khadim caravane bii duñ cee am lu rëy cër bu rëy rëy ci la unte ngeen dem jóge fa ñëw ci fii ci seen njagga la ñëw fii kon bu ñu ko toppoon tey na ñu jàpp ne amul benn commune bu ngeen dem rek am fii def fi li ngeen def fii ci diir bu yàgg kon loolu am solo la sëñ bi sëñ Mamour Mbacké yàlla na yàlla may jàmm nga yàgg suñ kanam ndaxte li lépp euh, wax dëgg yàlla lóore la ci commune bi ay xiwal la moo ndax xiwal yooyu aussi noonu dinañu ko beggee ak njaboot gi yépp nag bàyyiwuñu kenn di ñaanal ñépp ñi nga xam ne jàpp nañu ci bés bi bu muy réussir nii ndaxte bés bi ni mu mel fépp fu ngeen dem rek population fekk nañu leen fa ànd ak yéen gunge leen loolu lépp mooy wane ne sëñ bi am nañu cofal goo xam ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar